asalaamaaleykum waa golf asalaamaaleykum waa commune golf te dellu si waat nañu seet si Serigne Mbacké Sylla Serigne Mbacké Sylla gaa ancien golf la woon mais tey candidat la Nafoore moo ko investir lan mooy Nafoore nouvelle alliance des forces républicaines ñoo ñëw investir Serigne Mbacké Sylla Serigne Mbacké Sylla asalaamaaleykum ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaw man ngay man maa ci Mbacke si nii ancien Golf waaw ah, deux mille deux ba deux mille huit nekk naa ko maire Golf si biir góor jigéen mag ndaw bàyyi ma di kenn nekkoon naa ko xëy na ba ñu ba ginnaaw gi ma def ba 2008 ma bàyyi ma ma jógee fii 2009 2014 présenté wu présenté woon naa mais 2022 bi ñëw waaw boobu ñoo so ñoo woote soxla ñu damaa ñëwaat ñoom du ma ñëwaat waaw bi nga fi nekkee ne man def naa sama kenn kàttan waaw li ma li ma mën a xam daal mooy golf sud moom. am na moom fekkoon am na moom ko yóbbu ci kàttan yàlla ci géej gi maa nekk. monsieur le maire su ma neexee moo ko parce que nekkoon nga maire te yéene nañ la nga nekk maire monsieur le maire soo demee ba deux mille vingt deux population bi jóg léegi kaay nga nekk ak maire c'est parce que li fi deful baax na macha allah mais soo doon wax sa mandat mooy mandat bi nga defoon soo doon wax sa mandat loolu ban bilan ngay defal sa bopp. daa ñu koy xëy na moom loolu tax boobu la loolu la ñuy appeler ba tax ñu waat ma li ci jiitu li ci jiitu école yi am na école yu fekkoon dafa raaxoon Maodo Diop gi ci la bokkoon Amadou Diop ci la bokkoon donc man dafa fekk yëpp raax te si am ñoo xam seen doom bëggatuñ seen doom jàng bu nga ñëwee lépp laa def lépp laa defaraat bi miir yëpp dama ko yëg dafa dem yow man santé bi li ma ci war a def naa ko danaa ne santé li ma ci def ñëpp boo laajee docteur dañ la ñi ci nekk médecin boo laajee moom lan lan laa def sax ñi ci école yi boo leen wax boo laajee dinañ wax lan laa def ci école yi. gannaaw ba léegi amuloo dañuy jooy naan mbàkk si bi naan war naa gaaw ñëwaat. suñu hmm. école bi bu ñu bàyyee suñu dugub jàng rek jaar saa moom. Euh, beneen bi si mooy li may wax moom dara ma jege saa sonn rek euh, bu ñu bu ñu bu ñu ko woon bu dee bànnee nga dund ak ñoom dinañ wax ne nga dund ak ñoom. gannaaw loolu maa ngi ci woon sant ak def li ma mën Cheikh bi lépp man danaa ne nekkuma maire nekkuma woon maire boo damay dem di tëj wala nga dem ma soxla doomam doomam déedéet waaw lépp loo mën li ma def def naa ko mu jàppale leen am na jeunes ba léegi ñu ngi def kuréel sama loxo la ñu ñaan dàll def <laughs> des mm-hmm. mooy jigéen ñi euh, li ma mën defal naa ko jigéen ñi ndax indee si teg sànq dama nañ laaj seen bopp ngeen laaj leen ba xam Mbacke Sylla lan la ko def kër yi mu leen jox ba léegi état lañ ko def di ci liggéey di jël waaw te su ma bu ma ma doon yeneen maire def ko ne ma da ko yeneen maire daan yi itam def naa bi jaww ji xam la fa def ak ñoo ma ko joxoon ba liggéey ko liggéey ba liggéey ci liggéey ñoo ñoo na nañu ñëwaat ndax ba liggéey ba léegi dootul maire amatul maire marché bi boo dem Cambérène foofu ay fas lañ faa yow boo fa demee kenn xam lay jeex ndax ay fas ak loo xam ne xew ay saa lu ne mais boo fa bañ defee tournée ma gis ko préféré di waxtaan ak benn boobaat ba ko yóbbu bi mën a ko non sax fii ci commune bi lay des xeex bu dee laajte fexe ba commune commune bénéficié wu dana sama liggéey la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënu ma ko wax. monsieur le maire démb la campagne ubbi pour fukki fan ak ñeent. le 21 lay jeex ñu noppaliku le 22 le 23 ñu dem voté ji yàlla na doon maire mais tey nga ubbi sa campagne électorale nga wër golf benn parti golf mais loo yëg loo yëg xool bu xool bu sedd rek parce que di dem ci nit ñi foo dem ñu siggi ñu waxal loo xam ne sax fàtte woon ci lu baax boo xam ne fàtte woon moom xëy na boo ko defee man ko man boo ko defee sa bàyyi mu ci xel. am na fi ñoo maa ngi dañoo ñu naan defal naa defal naa te mu jëm si tànkam waaye def naa loolu mooy moo doon mooy loolu mooy loolu loolu meer meer nga jege askanam mu am lu mu lu mën a jàppale jàppale leen waaw defe naa yëg yëg yëg loolu la euh, ma fas nag mu ci yàlla yëg boobu jàmm ba ñu ba ñu gëñëwaat ko deux mille deux pour tegoon suñu tànk benn yi def fa yokk ñaar ba ñett ànd ko suñu Nafoore mooy nouvelle alliance des forces républicaines du coalition parti politique mais Nafoore lu mu def. Nafoore day njëriñ la nga léegi li ma demoon léegi mooy njëriñ léegi du ma dem nga tax ñu def ñu mën Nafoore njëriñ doomu léegi te kon njëriñ moom ñëpp war nañ ko bàyyi xel buñ bi di njëriñ kuy kuy Sénégal wala nga bokk ci xam ne nafa am na lu ko tax a jóg. bi ma amoon démb nag ma ko sañoon moo tax ma jëm ma koy def. waaw monsieur le maire jërëjëf damay dama sa dernier mot pour tey yàlla bu mu nekk sa dernier mot mais pour tey pour la journée d'aujourd'hui sa dernier mot monsieur le maire mooy sëñ bi. mooy moom mooy tànn loxo la ko ñëwaat na ñoom lañ doon laaj dikkaat na dikkaat na ñëwaat naa ci ci géew bi ñoom nag ñoo ci des maa ngi tànn loxo ñëpp góor jigéen mag a ndaw ñu xam ne nafoore yi mooy seen parti bi leen di di jëndee ëllëg ñoo ci ko liggéey te suñu ko liggéey golf fi ñu fi ñu bëgg golf egg fa ñu yóbbu fa golf nekk ñu maire bi tey nekk ñu maire boo xam ne dafa yor na ngay gis daal déedéet waaye dañoo ñëw fas yéene ñoo ànd ak bi liggéey dee dox di dem ko def buñ dee xalamu dinañ ko def ba keneen ñu def ñu loolu daal mooy rek maa ngi gërëm ñëpp dañ ci xam ne nga mooy seen mooy jeune parti bi am ba xëy na ëllëg mën na jëm seen bopp donc monsieur le maire jërëjëf mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi chaque jour ñu nañ koy defee saa yu monsieur le maire génnee dañuy def benn reportage ci moom balaa sa ngeen xam ne waaw golf ñu bëggal seen bopp Serigne Mbacké Sylla asalaamaaleykum